برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجلفيد تيجان جخن نوينا <laughs> xam nga bind kamel xam nañ ko waye tay dama lay wax xalé bo xamni fukki atak ñet ñett la am ba pare di bind alquran kaamil ta du ko xool du ko def kaay ñëwal bi ñëwal ma ne nii lu nekk bi fena la ñu ngi Fallou jëlal ma lii xalé bi day bind kamel alquran kenn ana yi nga jot bind ko sax léegi ati bindal ma xool seeraan ko Fallou ما شاء الله تبارك الرحمن so paree faalu da koy mass da ma sëkk te du ko xol du ko gess maanaam li may bind alcorane ta do ko gess lu yéeme lay won ma ngi fi gën gi new nag gën gi new yo xam nga li ngay bind ni ban saara nekk ah ban saara nek ban isib la nekk voilà lii yëpp ci kanam la bok suñu faam ta amul lenn lu ci gone yu xol da koy bind mass ko ta du ci xol dara allahu akbar allahu akbar maanaam di bind alquranul karim tax gëstu woo xale bu am 13 ans Fall moom laa indil tey gin gi neex yenn saa damay jéeg-jéeg nii est-ce que ñun duñu duñu diwu diwu xeesal pour ñu xees ngir gars yi di ñu gëm dañ gëm suñu bopp senegal li mu am amul fenn xoolal xale bu am 13 ans di bind alxuraan te gëstu te direct nga fay am nii Fall boo xoolee mbind mi tooñul. ah mbind mi tooñul benn yoon. muy la sax calligraphe calligraphe daa am yar. Mhm. loolu it ma a ko man. Mhm. waaw gone gu toll nii mën a yaroo nii ci am mbind. Mhm. loolu it baax baax neexut a gis. a gis kon kii moom taxaw nañ ko baax a baax. macha allah te daa retar bi la waaw waaw wér na moom lii de mooy lii de mooy lii de mooy cosaan. ki yéeme nag xam nga bu doon da koy bindaat sax sëñ Fall du garaaw mais kii bii mooy kaaminam bu njëkk muy bind alxuraan te du ko xool. noonu la ñuy bàyyee de. ah tool yi kenn te xoolal noonu rek directeur bi dañ la daan jàngal alxuraan yar la waaye jàng la liggéey kii bu génnee fi ñu du bañ benn liggéey lii la mag ñi bëggoon man alxuraan ba noppi yor jikko jël ko faal yaa ngi defal bu baax mën naa laa jox fu ma neex ci asam cos ko ah kii gi ndax ñeme naa ko foo ma si istusayduuna wala taluwuuna déglu ko baax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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركهم الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ما شاء الله قالوا قالوا يا أيها العزيز مسنا قالوا يا أيها العزيز مصرنا وأنا ولا تبدينا ببداعة مزجة فأذلنا كي لو عليها إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم في سواقي إذا أنتم جاهلون قالوا إنك لعن ضيف وقال عن وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قد خان الله من قبل فأمكن منه والله عليم حكيم إن الذين وإن يريدوا قيانتك فقد قالوا الله من قبل فأمكن منه والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض ما شاء الله أسألك موسى gis nga ko noonu def. ndax delluwaat ci ginnaaw delluwaat ci ginnaaw ak runge la. waaw runge boo delluwaat ci ginnaaw rek da ngay ñëw da ngay ñëwaat. bu newoon day tarafu. waaw delluwaat delluwaat. waaw loolu la kii kii muus la macha allah. diwi la diwi waaw kii kay diwi la waaw yow